am jox ko eh dem nañ jox ko. alors alors alors madame madame Aminata Touré tey gis la euh, sa teewaay fii ci euh, donc euh, makkaanu atte bi nga teew fii déjà est-ce que donc dossier bi nga xam ne soxal na réintégration Ousmane Sonko moo la fi indi. waaw ah, mais bien sûr dama ñëw taxawaay bi ñu ci am dama ñëw exprimer sama solidarité Ousmane Sonko di am yaakaar dinañu dégg dégg décision boo xam ne bii. mooy jubalewaat sénégalais yi ak seen justice. parce que tey sénégalais boo laaj danaan la dis justice su par par loolu ñu am notamment ci wàll wi ci dossier bi. banu demee cour euh, suprême euh, cour suprême attewul da ko wàccewaat fii. mu am ci ay juge ak i magistrat sax laay wax ay jigéen aussi yoo xam ne dañu am taxawaay bañ aussi ñu wàcc yoon kon tey yaakaar bi ma mooy vraiment ñu am juste décision boo xam ne bi mooy delluwaat Ousmane Sonko ci élection yi jox ko fiche de parrainage am mu bokk man candidat la man ko wóolu sama bopp la am samay parrainage mais dama gëm ne démocratie système compétitif la doo xool diw rek ne wuu kii daf may sonal dama koy di génne dama koy faagaagal non moo tax ñu war a taxaw parce que dafa am solo ñu taxawal suñu démocratie ñu exprimer ko suñu solidarité ñoo bokk nekk F24 bokk nekk ci fit euh, kon loolu it dafa am solo ba ma ñëwee it dama ci profiter pour dem seet yi le juge Maham Diallo di ko laaj permi de visite parce que ba ma fa dem dañ ma ne tampon bi leerul ma ne bii nag maay damay ñëwal sama bopp mu tëju ci biroom tëju ci biroom sañu la génn sax ne moom ma madame le garde des sceaux l' ancienne garde des lii moo da du ma la jox sa permis loolu nag dafa rafetul dafa rafetul parce que moom maa doon quand même kilifaam mhm. maa doon kilifaam ci wàllu justice quand même ma ñëwee dox sa sol sama ñëw ba sa bureau voilà xanaa voilà ñun teraanga la ñu xam Sénégal voilà ma toog même bu dee deux minutes nga ne ma madame day lii ak lii ak lii tax mënuma laa jox permis mais mënu koo wekki ci droit moo tax mu préféré tëju ci bureau loolu mooy li may wax démocratie bi dafa dellu ginnaaw ñu war a taxawal démocratie bi taxawal suñu askan loolu la indi ba ma fa toogee it xale yu bëri fekk nañ ma fa di jël ñu leen di jox ay permis voilà mais nañ libéré c'est deux mille plus de deux mille cinq cent jeunes yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi sama responsable Jules Dembélé départemental bu Tambacounda mu ngi ci kaso bi depuis six mois amul dara lu ñu benn acte judiciaire bu ñu jël kon yooyu mooy euh, yi nga xam ne li nga xam ne euh, war nañ cee taxaw bu baax a baax di am yaakaar ne décision bi ñuy jël décision bu favorable lay doon. bu fekkee boo xam ne décision boo xam ne warul ak li ngeen li ngeen di yaakaar. mais dañuy gën continuer di taxaw àddina nag man man de noonu laa gisee àddina su ma newee ci li ma ne dama ciy taxaw di ci xeex ba voilà fa ma ca war a yegg. voilà dinañu continuer di xeex pour que ñëpp bokk ci élection bi. voilà di ci woo nag aussi démocrate yi mag ñeeg xale yeeg ndaw ñi parce que lii ñuy xeex xeexaluñ ko suñu bopp rek ah. voilà Sénégal li ñu ko bakkee mooy qualité démocratique voilà seen naataango politique euh, Moussa Diop maître ah révélation yi mu def tey mu ngi ci loxoy euh, takk der yi lan lan nga ciy wax waaw donc ñu ngi ko ñu ngi ko déggandoo ak ñu man li ma bi mu waxee dama ne nañ am commission parlementaire dégg ngeen li ma wax ci justice bi non <laughs> boo laajoon tey sénégalais yi <laughs> dix sénégalais yi neuf yi duñ la ne justice Sénégal dafa yem ak ñëpp dama ne nañu dem ba ci député yi am commission parlementaire mhm. euh, gouvernement bi ñëw pas sax ci lii mais permis yi nga xam ne joxe nañ ko ñu xam yan façon permis la ak kan lañ ko jox ak ñii ñu ko jox ñan lañu. Mhm. voilà loolu lañ ci bëgg parce que alal gi nag ñoo ko moom voilà. moom euh, ma koy exprimer sama solidarité suma sama sama rakk ju baax la on a d'excellentes relations c'est un avocat bon euh, yal na yàlla taxaw ko voilà ñu lay jaajëfal merci beaucoup voilà am sa micro merci beaucoup